léegi rek léegi rek dafa benn soxna su nekk France chrétien la sax marisa waroon rafetlu seen doxalin ñoo ngi ziar sénégalais yëpp di jiital ci ziar bi kilifa diine yëpp kilifa diine yi suñ tuddee sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér mel nañ ñëpp di siyaar sëñ Basiiru Mbàkke xalifa borom Daarul Muxti di siyaar sénégalais yëpp di leen sant bu wér gis nañu soutien yi boote yeeg taxaw bi yeeg yëpp gis nañ ko ñu ngi leen ciy sant bu wér a wér man la Papa Boubou jaalo li ma dal nag dama koy sante Serigne Touba di di jël lépp di ko di delloo njukkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ndaxte lépp moom moom moom ci moom la ci moom la tàmbalee. di siyaar tamit sama kilifa yi nga xamante ni ñoom laa nekkaloon maa ngi leen di sant bu wér a wér tey tamit toppee ma leen dara ndax dama xam ni mbirum Serigne tubaa la rek moo ñëw mu mu jaaree ko nii. di di siyaar sama classe yi sama promotionnaire yi maa ngi leen di siyaar bu baax ak sama collègue yëpp waaw di di soññ tamit ndaw ñi ñu gën a dayloo Serigne Touba gën a wóolu Serigne Touba jërë ngeen jëf.